màggal gu mucc ayib te ànd ak tawféex Aquaterra ndox mu sell te wóor ci bëri fer ñeent lool moo leen di gunge si safar gi Aquaterra si pur si léger Aquaterra disponible en format de 19 litres 10 litres 1 litre 50 60 35 et 25 centilitres Aquaterra moo leen di ñaanal màggalug jàmm internet Kër Ndanane TV asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Touba asalaamaaleykum yéen ñi safoo baaxoo di seetaan seen site internet Kër Ndanane TV mais aussi vous souhaitez un bon màggal mais tey di leen wax ni Kër Ndanane TV tey dafa ñëw pour couvrir événement bi mais aussi bu donner les meilleurs de l'événement et vous donner les clichés et tout ce que vous voulez savoir sur la le, mag, le grand màggal de Touba kon ni ñu koy waxee rek jërëjëf Serigne Touba ñu dugg ci biir am lu ñu def ak yéen. voilà. delloo ziar bu wér. da ngaa ñëwoon màggal si. waaw damaa ñëwoon màggal si de. bi rafet na de. waaw seerafaal bi gis nga ko moom la ñuy dund de waaw. Ah, moom la ñuy dund. ne ko Seydou Ibrahima rek la ñuy dund Babou Laye quoi maanaam loolu mooy buntu yàlla buntu yàlla moom. moom mooy buntu yàlla. waaw buntu yàlla la Babou Laye. xam nga ñu bëri ñu ñu ñu bëree koy dégg xamuñu tur boobu lu muy firi. lu muy firi. mais Sëriñ Tuubaa ko waxoon loolu. Babou Laye mooy buntu yàlla. ndeysaan Babul jannati mooy buntu aljana mooy imaamu kullu muridi laay nag bépp aji nam ci yàlla Seera Fall moo dee sa buntu bépp murid Seera Fall mooy sa buntu c'est Ibrahima Fall who is Ibrahima Fall mooy tuuram bi moom Seera Fall miftaahu mooy caabi kullu janaatil baabi salaam bépp buntu ajana yooyu turu Seera Fall moo leen di ubbi loolu Sëñ wax te maanaam boo déggee loolu mooy laa ilaaha illallaah ba Seera Fall jàppoon danaa dégg benn waay bu ko wax léegi te jàpp ñi gars yi xamuñ ne loolu ci la gars yi di rawante ci yàlla quoi ndeysaan ndax yonent yàlla Muhammad moom moo waxal boppam ne li ci moom mooy laa ilaha illallah di tudd yàlla afdanu maa kuntu la wax ana wa nabi wana min qabli laa ilaha illallah li gën ci man gën ci ñu jiitu woon samay mbokki yonante yi yëpp mooy laa ilaha illallah loolu Muhammad moo ko wax Serigne Touba ñëw wax ne Serigne bu matee Serigne yan moo dafay raxas xanin xal bi rey nañ tilim xat yu damisoo ba mu set wit comme yére bu taq sobe niñ koy footee Serigne Touba na Serigne bu ma Serigne noonu lay footee ruuxu ta yaaw mu def ca xuloo man xam-xam minal mawla bu koy jotli ci suñu borom te leeral ko loolu suñ Tuubaa ko wax ca Masaalikul Jinaan kon ne kon ne yaa ngi dégg kon li li gën ñun moo ñu dem sakku ji ngërëmul yàlla ndax suñ Tuubaa ko wax mu fu mu mën a tool na dem sakku ji ngërëmu boromam ijil muridu laa yuridu abada xayrani daa rahmaanu xaysu xasada murid daal la wat ci moom mooy mu dem sakku ji ngërëmul yàlla kon loolu la ko Cheikh Ibrahima Fall ut si loolu la ut si woon ci moom ne ko dama topp tànk yàlla ba mu agsi ci yow ci kër gi mu reer ma xaw ma fo boo ma wonee fu tànk yàlla génnee ma gën dem ndax lu dul yàlla aw ma ci soxla Sëñ Tuubaa ne ko julee fi nekk mu ne bu ma taxoon a jóg ma yem yem sama kër ndey ak sama kër baay ndax bu doon julee la kon mu yem ci Sëñ Tayba Dakar jaar na ci Tayba jaar ci moto fa Mama Touré ak Bambale baag ñu bari mais lim doon wut leer gam doon wut wut si ko ci Sëñ Tuubaa leer boobu la Sëñ Tuubaa wax ca si ne irtatewoo dama koo taalal min jami xalqi yàllaaw ci képp yàlla bin ba ma ca naanee ba pare wa as xii naan naa maa aha ndox ma min maa i kawsar yi la wax tukkee déggu maa u kawsar irtatewoo taalal naa ko min jami xalqi ci kepp yàlla mën a bind kon loolu moom lañ ñëw nii wuy si ko Touba xaadira nag xaadir ak laaye nag keecee nag ñëpp a fi teew te loolu suñ Touba ko wax fii lay jàppee ci min duniyaa u axasu min duniyaa u saadilil jinaan fii lay jàppee ci kër adduna bi jëm ak moom aljana ñu ne ci loo ko jàppee mu ne ci laa ilaha asbiya doyloo naa allahu yàlla dahran ba faw ñu ne ko ci loo ko doylee mu ne ci laa ilaha illallah loolu si wax kaddu li tax ñu gën koy dëggal ci kaddu bu yàlla lañ ko dëggalee parce que buñ ne laa ilaha illallah kalimatul haq mooy baatu dëgg laa ilaha illallah kalimatul xool yaa mooy baat ba kawe laa ilaha illallah kalimatul ruhli mooy baat bi ma gënal mooy miftaaxul jana loolu la yalla wax mooy caabi aljana mooy miftaaxu daaru salaam mooy caabu buy ubbi k jam ñu ne ko ak lan mu nekk ko xam ma jégal la say bakkaar wax ko ci alxuraan yonent yàlla Muhammad ñëw ne li gën ci man gën ci yàlla gën ci ñi jiitu woon ñëpp samay mbokk yonent ya ñu ne lan la mu ne laa ilaha illallah kon bu yàlla waxee lii yonent yàlla Muhammad ngeen ci mbindeef ñëw wax lii Sëñ Tuubaa ñëw ne asbaka na leen doy fi ci laa ilaha illallah ana naka baat boobu tuddaa dama koy xoowee sama lu njëkk lu njëkk jannatu rabinaay ndegam aljanaay suñu borom kon Sëñ Tuubaa li mu wax yàlla wax lii yàlla wax ca suratu mu ne faalam xam leen annahu naka moom laa ilaha illallah waxtaan fi li zan bi a jégal leen ci seen i bakkaar kon Sëñ Tuubaa li mu wax yonanti wax ko Seex Rafal ñëw dund ko kon ku ko bugg a teg man damay lakk bu yeboo ñëpp teew lakk duñ ci tiit kuy lekk xorom lu yàlla wax ci laa ilaha illallah yonanti wax ko Sëñ Tuubaa wax ko laa wax ku ko bugg a teg man ma lank te Sëñ Tuubaa ma wax ca Masaalikul Jinaan ne képp ku ngeen dégg mu tudd baatu laa boo xam secret ba ca nekk mat mën a nga fas ko mu ne la taqal aljana taqadan da nga tabi aljana ëllëg yonent yàlla Muhammad ñëw ne képp ku ci mujjee man kaana axiru kalaamu laa ilaaha illallah daqal aljana képp ku mujjee ci sa baar bi da ngay dem aljana delluwaat wax ne ma man qaala laa ilaaha illallah waxidatan faqat maa daqal aljana taqadan képp ku ngeen dégg mu tudd baatu laa ilaaha illallah dont benn yoon la ko tudd bu dee dégg la ci moom kooku buy dee di dugg aljana loolu yonent yàlla Muhammad moo ko wax. kon bu yonent bi waxoo loolu mu méngoo ak li Sëñ Tuubaa wax ñu ñëw ni wuyu si ko dañ koo war a dund wane ko te loolu la Sëñ Tuubaa wax lépp loo mën a saxoo saxol baatu laa ilaaha illallaah moo ko gën loolu Sëñ Tuubaa ko wax moo ne ak faali ya siran maxsuura laahu hubban wa laa ilaaha laa de ak faali mooy tijjil nañ ma sirran mooy secret ba mboot ba ban secret la boobu la ko Seex Rafaal toppee woon. ban mooy secret ba. dene bañ ma ko bañ ma ko tijjilee ba pare maxsuura dañ maa lakk allahu ci yàlla. waaye ñu ma koy ubbile xuban wa laa ilaha illallah kon képp ku teewul laa ilaha illallah mënoo jot ci secret boobu moo tax Cheikh Rafal jot ci te jaarul ci julli bi ba doon dund yonent bi lu mu doon dund bu njëkk te julli ñëwagul woor ñëwul lan la woon te doon dund islam leer boobu la mais julli da koo dab ak koor ak nag waaye yonent bi daan na dund islam lu yàgg te loolu yëpp wàccagul kon loolu ñun Baay Faal moom la ñuy dund waaw. ba ci tiijaan yi sax ñëpp moom la ñuy dund ndax alaaji malik jàng ba rey na laay laay jangay riir sikar ba mboolu moo tax mu doon boroma kon kooku ci laa ilaaha illallaah la jàppoon a ah. yonent yàlla Iisaa ne alléluia mooy méngoog laa ilaaha illallaah benn kado gi la kon bu ñu waxee loolu ñun dañoo ñaw war a ñëw mën koo seere si fii Touba Touba nag mooy texe bu leen jàpp ne mooy ay keroog nangam nangam ne mooy texe baatu texe la Sëñ Touba ko wax Touba ne Sëñ Touba moo ne Touba texe lii ñaal na xam din bépp jaam bépp jaam la ñaal ah. non mérité na ko fa tabax ba kàllaaxu macha allah. mu ngi koy bin ca kal xaw yooyu la gars yi day ñëw. laay yàq saa di taxaa di jëli saxum kuy toogaale ak ñoom la wax. parce que is ngir yàgg si boona dañ leen de fagul. muri dina taalibe saadaat din texe. ñu ne ban texe mu ne mooy Touba. Touba mooy texe. lii ñaal na abdin bépp jaam muridin bu ca nam yow dama lay jël si émission Assane kii li muy wax dafa am importance taw waaw loolu la si waaw kon bu ko defee rek ñëpp dañ ko léegi mais incha allah <laughs> <laughs> si ziar nañ la ñu delloo ziar bu wér a wér ñu gis ni nga ñëw nga laxasaayu ñëw màggal Touba lan fi indi woon waaw kontaan ci sëñ Bamba li mu jëf macha allah kenn la daal yi am mbégte ak contentement ci ñëw ñëw ci màggal gi. am mbégte ñëw am contentement ñëw ci màggal gi ñi gis nga laxasaay takk sa Seera Fall sëriñ Touba. Mm-hmm. macha allah ñoom moom sëñ Touba Seera Fall amuñu morom kenn lañu moo tax ñu dagg suñu lii te yëpp. Eh. ñëw ngir fekkee màggal gi. yaa ngi noonu naka ngay waajalee màggal gi. ah ak mbégte rek. ah waa bëgg ñëw ziar si xabru yeeg yooyu. mais li nga li nga def si Yaay Fall lan la. lii dafa mel da nga waajal ay weer ay lu mu fa def wala mbégte màggal gi la lu ñuy dund la rek mais mbégte màggal gi da cee bokk mbégte màggal gi da cee bokk mooy waxam moom fa tabaar fa kalaahu macha allah ziar nañ la. delloo ziar bu baax a baax. ñu ngi lay kontaan continué. ah kontaan continué lan moo waral mbégte mi. sëñ Bamba kese. sëñ Bamba kese kese kese kese. kon nga jógee pour ñëw màggal si. jo maa ba Fimela département de Fatick. département de Fatick ñëw war a màggal si. waaw màggal si. waaw mais gisuñu la xasaay gisuñu affaire fa demee noonu wala ay bàyyi ba suba. damay bàyyi ba suba lépp suba lay doon. Ah. lan nga jàpp si Serigne Touba. Serigne Touba. Ah. waaw julli gi si waa bureau ba ca ah. yu bari jàpp nañ ko mais comme temps bee ko xawul maye. Ah. waaw mooy loolu. mais suba xoolal da ngeen di fexe ñëw fii ngeen jël lépp jël liggéeyu sëñ Touba ni demee tout. incha allah am rabbi yow ñoo faree bu baax incha allah. yéen a fi nekkal askan bi kontaan continué. ah jaajëf bro la gis yaa ngi sàkk bi rek. waaw waaw waaw léegi laa jógee Gambie man waa Gambie la. ah Gàmbi nga jógee Gàmbi ci fan nga bàyyeekoo. ah maa ngi daa jógee Darou Boussoumbaala. lan moo la indi woon ci màggal gi ren. ah màggal bi daal Serigne Touba li mu liggéey si adduna bi. Mhm. loolu moo ma indi yoon fii nii. Serigne Touba ku liggéeyal yàlla rek yàlla dina la fay. Mhm. ah mooy ñaan ñeneenti yoon maa ngi ñëw fii. Mhm. fas yàlla. ñëw fii nii. ah di eh, waaw su ñëwee yàlla waaw. lan nga gis sa sëñ Touba mu jaral la nga jóge nga jóge Gambie ba ba fii ba ñëw ba fi. Serigne Touba man lu ma gis si moom daal lu rëy la. Mm-hmm. ah Serigne Touba man bu ma tamalee ñëw fii. Mm-hmm. xam naa yokku-yokku bu ma am si man. Mm-hmm. ndik ah, pour ñëw fii nii ji eh, bugg a eh, eh, ñëw Touba fii nii. pour ñëw Touba. da ngaa gis yokku si sa kan si sa sa boor. kon daal ku fi ñëw daal sa aajo dina faju sa aajo dina faju boobu kay wóor naa ko wóor na ma bu baax xam nga wolof bi moo setu dëgg la man pol la waaw wolof bi moo setu de kon nag Serigne Touba kay am xaaju nga ñëw fii nga ñaan yàlla nga ñaan ko dangay am su neexee yàlla. incha allah waaw nee na képp ku fi am soxla boo ñëwee moo de boo ñëwee la fajal sa aajo mais aussi tamit nag mu jege ba Gambia people ñëw fii rek rek pour màggal màgg pour màggal Touba bi sama góor gi ñu ngi lay ziar ñu ngi jërëjëf jërëjëf. ak saa kon ni ma leen koy waxee màggal de Touba bi tey ren dafa gën a dafa dafa ala daw me quoi kon ni ñu koy waxee mais si ñu nekk ak benn benn faal Fall boo xamante ni moom mi ngi tàkk njël. Euh, seen borom daaru la. borom daaru borom Sikori. waaw borom Sikori. ah yow ñu ngi lay ziar naka yi tey. doolu ziara bu wér. da nga ñëwoon màggal si. waaw dama ñëwoon màggal si. mais ku la gis ak sa njël ak sa lee xam ne Baye Fall vrai nga. waaw Baye Fall vrai nga Baye Fall. mais la indi man màggal gi xam nga si Ahmadou Bamba Xaadimu dafa wax lu am solo. mooy lan daanaka bu ngeen màggal wul sax picc yi danañ màggal si. kon ñun buñ màggal wul sax war nañ ñun donte sax si Ahmadou Bamba defuñu dara ñun dañoo war a màggal si ndax màggal gi lu ne jar na ko billaay wallaay. màggal gi lu ne jar na ko mais ceci tamit nag booy joxee nit ñi pour li nit ñi war a mën a doxalee lan nga leen di wax. ah nu ñu ko nekk li maanaam yitte yi nga war a def si màggal nga def ko dem ñibbi ba te bañ a nekk fii di jëli alalu jàmbur wala ngay def yi nag sa ndax bu ñu xoolee si alxuraan yàlla dane wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma bu dee da ngaa ñëw pour sàcc indi la fi maa loolu dafa nekkul loo xam ne jaaru yoon ñun màggal moo ñu fi indi màggal dam ñu bis jàmm ak salaam loolu moo ñu fi indi wax ji am na solo bu baax a baax a baax a baax xanaa internet Kër Ndanane TV di bég si yow di kontaan si di la jaajëfal waaw man tamit maa ngi bég si yéen di leen ñaanal jàmm di ñaanal télé bi maanaam mu yokk ba ñëpp dégg ko mu maanaam fu nekk rek télé ba nekk fa di ziare seen mbokk la Abdou Khadir quoi waaw Abdou Khadir Gueye jaajëf Abdou Khadir jaajëf bég ci yow voilà ñu nekkal si toujours si préparation màggal de Touba bi donc ñu nekk ak sunu yaay joo xamante ni fa tabarfakallahu macha allah dañ ko fekk ci liggéey mais dañ ko xëcc parce que dafay baax ñoom ñu leen ay indi fii ñu ñuy wax màggal gi dañuy demee ak seen liggéey naka lay demee yaay maa ngi lay ziar. Ah, yal na yàlla nangu ziar. yaa ngi waajal màggal gi. waaw ñoo ngi waajal màggal gi bu yàgg. buñ commencé mbalem Touba mi ba léegi. dëgg la ñu ngi ci kër sañ Touba gi. dëgg la diggante kër sëñ Touba kër sëñ Abdoulaye. Ah, waaw nekkal fa soxna maam Issa Mbacke ak lu kafe moom ku ne xam na ko si liggéey bu sell bi waa ndax moom liggéeyal maamam rek a ko tax a jóg waaw moom la sëñ Muntaxa yóbbu woon Màkka ren rek lañ ko doon ganale barki démb rek lañ jóge si ganale gi ndax liggéey bu seel lam waaw yaay booy lan lan nga jàngat ci màggalu ren bi màggalu ren bi a ah, xam nga yoonu sëñ tuubaa moo noonu tànk kanam rek la am amul tànk gannaaw moom chaque année rek moom day gën a yokk waaye du dellu gannaaw ndax bee toll noonu moo tax. yaa ngi ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. amul benn problème ñu fekkee ko ay déwén. amiin Amis internautes Kër Ndanane TV ça a été un immense plaisir d'être là avec vous mais je suis tamit tout en sachant que ni xam naa ne yéen ñëpp bëgg parce que tafa tabarfakàllaahu macha allah lépp loo xamante ne rek ci événement bi la aajo rek Kër Ndanane TV ñëw na tey indil leen ko mais je suis indil leen tamit ay reportage yoo xamante ne fa tabarfakàllaahu yu muccit ayit gis ay ndaw yi am yu am diine gis ay ndaw yoo xamante ni fat Serigne Touba tegoon seen tàgg fat la Serigne Touba taxoon muy sonn muy loo xamante ne am ay ndaw yoo xamante ne ay ndaw yu am diine lañ ay ndaw yoo xamante ne ay ndaw yu yu am pas-pas si diine gi tey fa tabaar fa kalaaxu macha allah yaakaar naa ne gis na leen ko mais aussi tamit nag leen wax ni su resté connecté wu connecté leen yéen ñëpp te ngeen xaar yeneen émission mais aussi yeneen reportage que la fête soit belle mais aussi tamit nag màggal Touba bi kër Ndanane TV dafay fees dell pour ñëw lépp loo xam ne da ngeen koy soxla rek ñu indil leen ko yéen ñuy safoo di baaxoo